waxtu buñ namoon amal samedi bii di ñëw ñoom ñu leen nakk daanaka buñ demee gisanteeg préfet bi lañ leen xamal ni loolee mënta nekk moo waral ba daal di dañ koo dàq ba jëmi jamono ñoom nag li ñu xamle mooy li ni mel daal di nañ cee ànd bu baax a baax. waaw dañu ñëwoon euh, moo taxoon ñu woo leen sax euh, ci préfecture aussi lañ leen woowoon pour bu ñu déposer déclaration bi ba pare waxtaan ak yéen alors bi ñu xëyee mu am ay xabaar yu ñu jot. xabaar yooyu bi ñu ko ñu ne nanu ci waxtaan bi ñu ci waxtaanee ñu gis ne kon xabaar yooyu war naa mën a tax nu dàq date bi ñu jàppoon pour def suñu manifestation bi marche. wante rek mu mel nii li ni mel taxul ñu découragé benn yoon teg si seen xel dal na ndax liñ jàpp mooy dinañ mën a participer tamit ci lii di concertation nationale. fii Sénégal waxtaan du fi am boo xam ne nun duñ ci bokk mënta ne kon le problème bi du loolu. Euh, du nu def ñun manifestation si pour di xoqatal war di tiital euh, loolu yëkkatiwunu aussi dañuy wane euh, sunu taxawaay ak sunu gis-gis suñu sukkandikoo ci ki yor seen kàddu gi tey li mu xamle mooy jafe-jafe yi am nekkul lenn lu dul politique gi fii mu ne sénégalais yëpp constitutionnaliste lañ alors bon loolu mooy Sénégal mais lii nuy lijjanti du affaire avocat ak i juge lii ay problème politique moo am Sénégal solution politique moo nu ci génne article du nu ci génne alinéa du nu ci génne loi sàngam wala sàngam wala sàngam du nu ci génne parce que loi yeeg article yi ak alinéa yi du ay aaray alxuraan ñoom ñi leen nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax li nga xamante ne ni moom lañu nemmeeku fa nii ci réew mi prisonniers yi nga xamante ne nii ñu ngi leen di génnee kaso ndax lépp day jëm si luy indi jàmm